Uh... <laughs> marhaban bikum Sénégal tey ci alxames ji fa ñuy dëjël deuil national mbooleem ñi faatu ci fitna ji fi amoon fan yi allah laa yéene kaay ñu ko xamal njiitu réew Macky Sall ci boppam moo jël dogal bi ni mel critique yéene kaay ne Macky nag fa mel ni fa njëkkalante ak opposition bi ku jéggi nga xam ne ñoom suba ci àjjuma ji lañ wax fa ñuy def deuil national dëjël ñaanal ñi faatu ci fitna ji te mooy yéene kaay ne Macky kay fa bëgg a wane na fi mu toll nii téyewaat na yëf yi ba pare ma ngay dalal xelu ndaw ñi ah. yaaw seetal ñetti téeméer ak juróom fukki milliards moom la wax na lay génnee fii ak ñetti at ngir jagleel ko ndaw ñi seen xëy ak li ni mel jëlaat na dogal ngir dakkal wàllu couvre-feu yeeg li tere woon yépp ci xeex mbas mi fi mu toll ni fa tinki askan wi fii ak le 19 mars ci la yëf yi di jeex réew mi yéene kaay na ko jeex a gudde woote na conseil national fi leeg fukki fan ci weeru avril lépp ngir lijjanti xëyu ndaw ñi ak taxaw leen wal fajir yéene kaay mel ni ku naan ko su fekkee Macky fa a neexal askan wi yii muy wax ak a jéem a def réew mi loolu moom bokkut ci yaw seetal moom ci boppam moom Macky moo xañ boppam ngir mën a nekk candidat 2024 ak yii mu def nii yëpp askan bi taxaw ci kanam na ko xalaa mandir bàjjo xalaa xalaa doo fi jaar exclusif yéene kaay ne yëf kay Macky fa ko yàqal lu bëri ndeysaan ba ci 94 milliards yi complot bii fa ko taqal yéene kaay bi ne complot bii ñu complot Ousmane Sonko nag fi mu toll ni gaa ngi weeru de secret yi mbóot yaa ngi huññeeku bi nga xam moo bindal Adji Sarr plainte bi léegi xam jege ñi nga xam ne ñoo tuumaal Sonko la ñu ne déetawaay li gën a garaaw mooy démbu ay audio whatsapp yu Adji Sarr moo ci génn ñu dégg Adji Sarr di ca waxtaan ak Sidi Ahmed Mbaye wax yu garaaw nañ oo Ousmane Sonko laaj ko xaalis ak ak lii may def nii di la yónnee audio est-ce que du siiw ñu jël sama photo dugal ci internet bi ma am problème man daal lu laay ragal nee na ko Sidi Ahmed Mbaye man wóolu naa la yow waaye ñi nekk sa ginnaaw ponkal yi wóoluwuma leen te palais ngir yàq deru Ousmane Sonko moo tax mu def ko ak am xaalis la ko Sidi Ahmed Mbaye tontu nag ci WhatsApp ba gars yi génne wuñ ko de l'observateur na ko ma yokkal la ci maître Dior Diagne moom it nee na fay porte plainte avocat yi Ousmane yi Bamba Cissé ak Pape Samb Sow ah xam nga fañ doon wax naan moom moo bindal Adji Sarr bi te ndeke loolu amul li am tay nag ci alxamis ji mooy waa section de recherche fa woolu capitaine Oumar Touré mooy ki ñu tëj wala fay ragal ñu ray ko wala fay ragal ñu ne fa dof ba tax ma ngay leeral ne maa ngeeg sama wér-gi-yaram dara daru ma jinne jàpput ma li ma wax ci mbiru aji saar yi sama diggante yàlla rek laa wax te ci sago laa ko waxee ñuy wax nag naan faa dof ak saa xel fa manqué waxuñu dëgg de man nooteel injustice moom laa bañ moo tax ma toj kaas yi leeralal askan wi ni yëf demee yëpp yéene bi mel ni ku naan ko bi nga leeralee nag képp ku dégg li nga wax fa na fi mu toll nii Ousmane Sonko kay yëf yi ay complot la daraa ci a faagaagal la ñuy wax waaye loolu leer na li moo yar capitaine Touré mooy ji li muy wax nii fa foog ne daal fañ koo liggéey ba mu yàqu àndut ak sagom wala boog fa dof l'observateur ne waajuram bi ko yar ak moromam yam doon jàng ak université ñi ngi wax kan mooy capitaine Touré li mu xam daal moom yéene kaay bi mooy ne benn at ba juróomi atu kaso ba moytuun moom lañ ko nar a tëj ci les éco yéene kaay moom capitaine Touré na ko waaw dëgg la mën naa am ñu tëj ma kaso waaye li ma bëgg ngeen xam mooy ne ku bëgg réew mi di a fekk mu fekk si jamono jooju Seydi Gassama justice kàddoom yaa ngi ci enquête yene kay temo te mooy yéen a kaay ne jigéenu Casamance ya dem sa seen barabu ñaanee kay ya xërëm ya nee nañ am na ñu leen leer na Sonko fañ koo tuumal te mbolam ku bokk ci tuuma gi complot gi su nga paré fa ngay mujj du baax de ah li baaxul si njiit réew Macky Sall mooy xibaar yi benn tubaab wax ca France nena na Macky boo gisee mu bàyyi Ousmane Sonko parce que Macron njiit réew bu France moo ko xosant na ko gaawal nga bàyyi ko tout de suite rek Macky ba ko xam nga loolu fay wane ne ñun suñu réew mi Macky jité wut ñu tubaab yi Macron moo ñu jiite moom rek ko mën a wax lu mu dégg ku ko mooy nag Macky faalawut la lolu la Sénégalais jangat waye tay nak Dakar Times nena amna ben tubaab diplomate la français weddi kàddu Zemmour yooyu noonu nee amut de Macron waxu dara Macky direct news na ko waaye li jaaxal mooy lu tax Macron ci boppam moom génnut weddil boppam waaye fa noppi rek vox populi di ñu xamal na jëwriñ di ñu dénk wàllu biir réew mi fa demoon seeti ji ñi nga xam ne fa ñoo am ay gaañu-gaañu ngir jàppale leen keneen kuy jàppale Macky Sall mooy Boun Abdallah Dionne Macky lii ne coow li fi am nag du dara lu ah làqatu ba yëf yi jeex mu génn bëgg ñoo tànqal Serigne Modou Gueye njiital parti bi ñuy wax Union patriotique bëgg sa réew UP ne xëy faa leen di wax liy dëgg gis nga Macky Sall fa war a xoolaat ñi nga xam ne ñoo ko wër ñu bëri si ñoom gëmuñ Macky seen bopp rek lañ nekk ndax bi coow li amee ñoom ñëpp ñu bëri si ñoom fa ñoo daw làqatu ji kenn déggul ñu défendre Macky ci 24 heures yéene kaay Serigne Modou Gueye ñaawlu na fitna ji ci réew mi ba pare firndeel ak jàppaleem si njiiti réew mi turbine ku naan ko sëriñ bi bu la dara métti gis nga pesum kanam borom a koy Sall fan yi di ñëw du yàgg rek dana dàq ay ministre yu bëri kaj ji biti fay andi ak coppite ci gouvernement am bi xam na ñoo xam ne faale na jàqal enquête yéen a kaay na ko si yoba mu gaaw ci de ndax opposition bi moom ku jëgi ñu ngi gën di defaru fas yéen a gën a nekk benn lépp ngir jële fi Macky ñañu jëlee seen kër ya jàpp leen sa Touba ñi ñu yóbbu ca kasoga ga source ay yéen a kaay ñu ko xamal yow seetal ginnaaw bu ñu rajaxee RFM Mbàkke ak station Total dal waaye Sonatel bu tuubaa juróom-ñeenti doomu aadama seen kër ya lañ leen fekk napp leen léegi ña nga ca kaso ga tàggat yaram Barcelone fori na new fañ doon jéem a waa Paris na leen fii ngund du fi naan a ñeex ñu ne leen acca dox leen foy yéen toog ngeen naka noonu Juventus ñoom it ñaw ba tax record yéen a kaay na quart de finale Ligue des boo xam ne Messi bokku ci Chris bokku ci 2005 da a am ñu nar a bokk ci quart de finale yi nag mooy Liverpool démb Salah ak Sadio Mané ñoo lakk caax ya ki lakk këram ndax fa def lu garaaw l'observateur moo ñu ko xamal yow seetal benn waay daal fa xam jabar ba pare ëlbatiku di génn maanaam bëggante ak tantay jabaram ay ba ko jabar ja yëgee mu jël ay photo jëkkër ji yu garaaw tasaare ko jabar ja nag tëj nañ ko benn weeru kaso jëkkër ji nag ca kanam àttekat ba ci la waxee ne hëy xam ngeen luy dëgg mooy sama tàntay jabar faram laa woon aay waa ma ne foogoo ne faso woon sa jabar takk tàntam moo gënoon a noppale donte yëfi salte na ñaaw na